sur les territoires contemporains du madiankisme maanaam fi madiankisme bari doole tey da ngay mën a indi ñetti pôle maanaam ñetti teritoire yu mag bi ci jëkk mooy le pôle du centre maanaam li nekk diggante gosaas ak Kaolack dem ba Sadio jaar Mbar jaar Mbos madiankisme dafa bari doole ñu expliquer sànq ni li ko waral mooy action Maam Momar Talla beneen pôle bi mooy la pôle du nord Kajoor ba keroog ngay dem Ndar Njaambur Waalo Gànjool doon na pôle boo xam ni madiankisme dafa bari doole mooy wurmbal bi féete gànnaar raison yi développé nañ ko mooy ci biir histoire xeex ya fa la ñu ëppee doole loolooy expliquer tey ñu comprendre lu tax madiankisme bari fa doole ak taxawaayu mag ñi nag ginnaaw bi xeex yi jàllee ñetteelu pôle bi mooy euh, l'ouest maanaam Bawol Mbuur dakaar ak li ko wër Jandeer foofu it expliqué nañu li tax madiankisme bari fa doole Bawol mooy base bi fi la ñu déparé nag di dugal madiankisme fi ci des fépp fu ab gox yaatu mel ni Dakar mel ni Thiès dem ba Mbour waaye base bi mooy Bawol kon loolu mooy les territoires contemporain du madiankisme bilan territorial bii ñu def nag wane fi madiankisme bari doole ndax dafa dem ba ci développement territorial développement territorial dafa am wuute ak expansion territoriale expansion mooy yaatal développement territorial nag moo gën a xereñ développement territorial mooy gox boo xam ni ña ko dëkke dañuy demalante ak a dikkalante séq koom-koom séq culture ba loolu yépp di suqli seen ab gox loolu mooy développement territorial définition boobu nag boo ko indee ci ñetti gox yu mag yooyu ñu wax léegi di pôle nord pôle sant ak pôle ouest ndax développement territorialu madiankisme ma ngi fay dox conclusion nag ñaare kenn du ci poser question mais man damay poser question yoo xam ni yéen di ngeen ci am tontu ndax ñetti gox yu mag yooyu madiankisme bari doole ci lu wér ndax organisation am na fa ci ñuy wuyoo madiankisme ndax ay daayira nga fa yuy dox ndax am nañu seen daara bopp ndax am nañu seen jàkkay bopp ndax am nañu seeni siège sociaux ndax am nañu keesu solidarité loolu mooy indi développement territorial mais du yaatal rek bu loolu weesoo ñetti gox yooyu ci seen bopp ndax ñoo ngi demalante ak di dikkalante waa pôle nord waa pôle centre waa pôle ouest ndax ñoo ngi interagir ñoo ngi dem ak dikk ci seen biir ci dem ak dikk boo xam ni li ko tax a jóg mooy développement waaye rek du yem ci ay gàmmu ndax loolu am na ndax am na ci diggante gox yooyu fédération buy dajale mboolem mu xàddam yi ndax gox bu mag bu ci nekk xalif général am na fa représentant ndax am na fédération buy dajale mbooleem daayira yi nekk ci ñett gox yu mag yooyu ndax gox bu mag bu ci nekk am nga siège ca na ba boo xam ni boo ñëwee fa ngay dugg dal gàmmo bu gàmmo waaso nga tëj dellu boo tontoo ci question yooyu yëpp di nga def différence entre expansion territoriale ak développement territorial defe naa tontu yi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy li ëpp ci laaj yi tontu li mooy déedéet kon yaatal am na mais développement territorial moom desandi na mag ñi taxawaloon nañ ko mais ñun ñi wuutu mag ñi wax dëgg yàlla desandi na foofu daal la ñuy tënke wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu dalal suñu invité yi nga xamante ni ñi ngi agsi ci barab bi diiran bi professeur yi def cours bi ñoo ngi leen di wax ahlan wa sahlan waaye di dalal particulièrement Serigne Cheikhoum si dafa Seck ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan Oustaz Mouhamed Seck ñu ngi lay dalal bu baax Ahmadou Seck ñu ngi lay dalal muy président COSIS muy conférence scolaire et universitaire de ba Seck mu nekk benn mbootaay boo xamante ni dafa nekk université di def liggéey bu am solo yal na yàlla dëgëral seen i taxawaay. macha allah xam naa ni ñu ko annoncé woon rek dañuy jàll ci intervention bi ñeel ñi nga xamante ni dañoo bëgg amal ay laaj jëme ko ci professeur incha allah xam naa jot nee jël seen i tur ñuy def rek mooy dañuy woo par kenn rek ku ñu woo rek bu mënee jug taxaw. mu laaj question bi incha allah professeur dina ci tontu ci kàttan yàlla incha allah xam naa ki ñuy njëkk woo rek ngir mu amal question mooy Galaye Faye macha allah tafaddal xam naa ñu woo Habib Seck incha allah mu laaj question am la taaka Galaye Faye di ñëw incha allah sëñ Habib bismillah tafaddal Habib ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara euh, di baalu xàq bu baax a baax di leen baal di ñaan borom subhaanahu wa taala boo leen jéggal xam naa kàddu gi dañ koy tënk rek sof ko fi mbokk yi baaxee doon waxe ci nuyoo yeeg la ca aju euh, li ñuy njëkk a def mooy dañuy jaajëfal professeur bu baax a baax ci waxtaan wi am na solo lool yàlla na yàlla barkeel xam naa li nga xamante ne bii naroon naa ko cee laaj sax ndax jamono bi muy bind sama laaj bi di ko bëgg a laaj booba ak ci. waaye bi nga xamante ni bii agsi na ci moom leeral na ko bu baax ndax dafa am tomb yu mu laaloon ma am fa question far bi mu ñëwee ci fin bi mu daat koy mu daat ko ci euh, tontuwaale. bokk na ci sama question yi ci li ma naroon laaj mooy li mu wax ni moom la mag ñi def wër maanaam liggéey lu baree bare baree bari bari li ma ci euh, nga xamante ni moom laa doon laaj cam mu wax ci côté yooyu ni amaana foofu amatuñ fa doole dafa bokk ci li ma doon laaj naka lañ mën a def ba gox feebul nañ fa ñu man ba ñu mën faa amaat doole bokk na ci kii nga xam ne naroon naa ko laaj ah, ak yi nga xamante ni bii moom ci biir wax ji tontuwaale na ko kon eh, du jar ñu ci ñëwaat bu baax a baax kon dañuy yemale foofu kàddu gi rek doo wax ne li ci baree bari daal ci biir kii bi leeral na ko kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jéggalu kàddu yi bu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, maa ngi nuyu mbokk ñëpp di leen asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, tur bi Baye la maa ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziyaare bu baax a baax di am mbégte ak kontaante ci euh, programme bi ndax yaakaar naa jàng la ak jàngale te ñun ñi nga xam ne ñoo ñëwoon pour jàng si même bu dee aslëf la sax yaakaar naa jàngatee nañ ko ci ci euh, programme bi nga xamante ne moom la professeur doon amal macha allah euh, ngir bañ a guddal rek dañuy ñëw directement ci question yi nga xamante ne bi amoon nañu ko bi si njëkk mooy Euh, séminaire formation bi ñu def da doon wax ci madiankisme ak yoon yi nga xamante ne moom la jaar ak développement ak euh, expansion bi nga xamante ne moom la am léegi dama doon laaj baat bi exactement fan la jugee xam nga ñaare dañuy faral di wax ni mbir moo gis maanaam action ba ne ma demee ak nañ koy tuddee dañu am relation est que baat bi ci boppam dafa am relation ak maam turu bi dafa am relation ak mbir mi la mu doon demee wala Madian Kiss maanaam baatu lan la exactement moo bi fan la cosaanoo deuxième bi mooy ci tachamusha bi nga doon wax ci waxtaan bi ci euh, kii bi euh, waxtaan bi yaa ngi wax ni benn philosophie la maanaam philosophie soufisme la woon wala lan moo taxoon ñaari koy jël boole koog euh, tijaaniya bi pour mën a doxal li nga xamante ne moo la doon doxal est-ce que mënuñu woon a sukkandiku ci tijaani bi donc wala maanam force la woon ñu boole waale ci euh, kii tasaamu sha bi ba xam benn philosophie soufisme la woon wala wala benn mbir la woon bu bokk la loolu. troisième et dernière question bi mooy ci fi mu jeexalee ci euh, ci kii bi ci programme bi comme ni ko mbokk mi waxee sànq ay question yoo xamante ne bi posé na ko ci mu expansion bi am waaye aussi développement bi nga xamante ne moom la war am te amagu ko te ñu war cee taxawu. léegi dama doon laaj ci ban dimension spirituelle la ñu mën a sukkandiku ba madiankisme boobu noonu nga xamante ne bi mag ñi def nañ expansion bi ñu mën a indi développement territorial bi yaakaar naa loolu moo nekkoon question yi nga xamante ne bëgg naa ko posé di jégalu baax a baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah man ja di leen ziar ñëpp ak kilifa yi fi toog yëpp man question bi ma bëggoon a posé rek mooy si je peux en français pourquoi pourquoi le choix du mariankisme pour Maam Ahmadou pour pourquoi le choix du mariankisme c'est seulement cette question. aleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp tey di leen jaajëfal ci lii nii surtout professeur man nag presque question bi nga xam ni Mohamed Diagne moom la posé moom laa doon bëgg a posé parce que it maanaam. question bu jaadu la fii nii xaw ba xam gars yi dégluwaat nañ ko wala bàyyiwaat nañ ko xel mais question bu jaadu la boobu noonu laa bëggoon maam buñ ci mën a am ay leeral yu gën a laatu si rek incha allah te benn bi ba tey mooy dañuy gis ci réew mi maanaam ñu bari dañuy bind seeni livre am na ci ñoo xamante ni maanaam page ya nga xam ni maanaam jagleel nañ ko lu wàllu lu aju ci wàllu Seexu ba maanaam day duñ ci développé liñ ci war a développé wala it amaana bu fekkee ni dañ ciy waxit dañ cay wax demewul noonu ma ne kon est-ce que kon jotul jotul maanaam comme lu ci mel ni lii nii mouvement bii nii jug am ay taxawaay ci maanaam bind bind ci li nga xam ni moom lañ war a bind ci kër gi bind ci li nga xam ni e, Cheikhou Thiénaba ak e, li ñuy wax e, madiankisme fi mu jaar ak moom bu fekkee ni dañ ci bind nag yan voie lañ war a mën a jaar ba bind ci maanaam Euh, wàllu madiankisme ak maanaam Cheikhou ba loolu daal daal laaj. ci njàngale mu rëy mi nga xamante ni yàgg nañu koo jàngal te ñu ni ñu amoon yaakaar ne noonu la ñuy jàngee non loolu moo ñu dal muy jàngaat nañ lu bees ci chaque fois bu jëlee micro wax ñu kilifa yi fi teew yëpp euh, damay rebondir rek ci question yi nga xam ne am naa ko parce que bu ma li ma jot a fekke ci exposé bi. dama am benn mot boo xamante ne dama ko ci retenir muy stratégie c'est-à-dire que boo gisee ci déroulement exposé bi baatu stratégie tudd na ko ci ay yoon yoon yoon yoon yoon loolu dañuy conclure ko ni mag ñi ñoom ay stratège lañ woon donc foofu ci dernier bi ci euh, fin bi je pense que ni posé nga ay question mais ay question la mais ay perspective la yoo xamante ni lu des la loo xam ni war nañ koo mën a dolli question bi may posé foofu mooy génération bi ñu nekk yan rôle lañ am obligation wu ko ba loolu nga xam ne mooy lu des lu ñu war a yokk ñu àggale ko parce que tey c'est bien que ñu jàng histoire li ci ginnaaw mais je pense que nii li gën a ëpp solo aussi mooy histoire yooyu ñu jàng ñu mën ci jël ay conclusion tek ay perspective yoo xam ne ñun ndaw ñi nga xam ne ñooy ñëw ci génération de l'avenir ñu mën a def àggale loolu ba mu ba mu ba mu àggale ci loolu aussi bëggoon naa am xam na question bi may posé sax moo war a jiitu question bi ma njëkk a posé parce que ci ginnaaw lay dellu te question bi on parle de l'avenir mooy euh, comment Thiénaba euh, parvient-il à préserver son patrimoine culturel et religieux à travers les générations parce que mu yàgg na Thiénaba yàgg na ay génération yu bari jàllal na fi waaye boo gisee ni doxalin wi ba léegi benn lay doon ci côté patrimoine religieux bi donc nan la mag ñi def ba ba ba loolu à travers les générations yi fi yi fi jàll yëpp et aussi quelles sont les mesures mises en place pour protéger les pratiques traditionnelles et les sites historiques de la ville xam naa ni wax nga ko ci sites yu bari yoo xamante ni xama euh, dëkk bi am na ko ci ay dëkk yoo xamante ne mag ñi yokk nañ ko loolu mag ñi teg nañ ay stratégies yoo xam ne noonu lañ def ba préserver dëkk yooyu waaye fexe ba doxalin bi am Thiénaba moo am ci dëkk yooyu enfin en quoi la préservation de patrimoine de Thiénaba contribue-t-elle à renforcer l'identité locale et la fierté de la communauté merci. mag ñi incha allah. xam naa rek juróomi question laa fi amoon yoo nga xam ne benn bi moom laaj na ko. waaye damay jéem a dama ciy jéem a indi tontu kon après. bu njëkk bi mooy wax nañu maanaam nasru diin ban objectif la amoon si jihad ak système bi nga xam ni doon na ko defee. mu wax ñu ni moom ak Ahmadu moom ak Cheikhu Ahmadu am na luñ ci bokk. waaye itam moom ak maam Ahmadu ndaa am na luñ ci bokk. te ñu yëg ni li mu wax ni moo taxoon nasruddin doon jihaad ba tey loolu du fi jeex léegi ñun ci suñu wàll naka lañu nan la ñu war a mën a def pour adopté wu pour ci jamono ci mondialisation pour mën a jihaad ba am yool ba nga xamee ne ñoom amoon nañ ko te duñu jël jaas yi beneen bi mooy euh, canaba ban la am ci bee salaat li nga xamee ni mooy madiankisme parce que yëg nañ ni Ahmadou Seexu selon li nga xam ne moom lañ gis mooy Ahmadou Seexu ci mujaddid yi la waaye itam maam Ahmadou Ndak ci ci mujaddid yi la léegi beneen question bi xëy na dina xaw a duggante ak boobu mooy ban influence la madiankisme am ginnaaw bi fi suñu maam Ibrahim jugee parce que yëg nañ ni am na liggéey boo nga xamee ni am na bi fi maam Mor Talla nekkee yëg nañ ni bi fi maam Ibrahima nekkee am na mu nekk ay liggéey yoo nga xamee ni yu palpable la yu ñu mën a teg loxo mais après maam Ibrahima dañuy am problème mu gis si liggéey yoo nga xamee ni yu ñu mën a teg loxo lay doon. beneen bi muy question bi nga laaj mu mu bindoon ko muy yan programme moo am actuellement ci territoire yi nga xamee ni tudd nañ ko te mu amoon fa doole bu dee génnee nga ci Canaba. léegi nag ma gis ni dama ko bindoon question mais comme que laaj nga ko ma gis ni bokk na ci jafe-jafe yi mooy euh, dañoo bëri ay repères fii ak ñun ñii ñëpp ndaw ñëpp wala comité Thiénaba fu mu mën a nekk ci euh, àdduna bi fii ak amuñu benn repère muy maam Ahmadou Ndak dina jafe pour ñu résoudre loolu. parce que da ngay gis ki nga xam ne surtout maam Momar Talla la muy xëcc jëmee ci maam Momar Talla ki nga xam ne surtout maam Tafsir Madické la muy xëcc jëmee foofu ki nga xam ne surtout maam Ibra Pend muy xëcc jëmee foofu. léegi après dangay am problème ñan ñooy organiser wu pour xëcc jëmee ci maam Omar Ndak ma yaakaar ni pour loolu am nag faaw ñun ñëpp ñu xëcc jëmee ci maam Omar Ndak bi muy ban stratégie lañu ñu war a mën a teg ba nga xamee ni dina ñu mën a décentraliser doole bi nga xamee ni madiankisme am na ko fii si Thiénaba loolu moo nekkoon question yi ñoo ngi jégal. ci question yi rek ñuy. Euh, Euh, nuyu bu baax oustaz euh, Amadou Makhtar euh, di ko jaajëfal ci taxawaay ci daara ji ci programme ci tasaare xam-xam yal na yàlla jàppale ko ci gën ko ci may ndam te di ko félicité waat ci résultat baccalauréat yi nga xam ni ñépp ko rafetlu di ñaan yàlla étudiant yooyu mu jig leen te ñi ci topp am ndam lu ni mel oustaz jërëjëf Euh, question yi moom xam naa dañuy euh, euh, tënk rek pour bañ a jël temps ba mu ëpp am na question boo xam ne dellusi na ñaari yoon mooy territoire yi nga xam ni ay territoire atypique la moom lañ leen tudde histoire bi dafa xóot ay reen te tey maadiyankisme néew fa doole lan mooy stratégie loolu moom euh, amuma tontu li lu ñépp di ànd xalaat la rawatina kilifa yi euh, waaye daal euh, mën naa bokk ci stratégie yi samp fa barabi xam-xam ndax coow li coow li ci diine la ñu nekk baas bi mooy xam-xam foo bëgg a am ay reen foo bëgg a am développement territorial point de départ bi mooy développer fa xam-xam ndax nit ñi lu ñu xamul duñ ko xeeñtu ku xeeñtuwul mbir doo ko topp boo demee fu mel ni Linguère euh, ci biir Jolof madiankisme amoon na fa doole mais ginnaaw bi daf fa néew doole euh, ndongoli koor na yéen xale ngeen du ngeen mais ku amoon taxawaay la foofu ci Linguère Euh, euh, rawdu yu moom moo ko tabax ci jamono yi sëñ Ibrahima famille ngam fa ba léegi mais daanaka amatuñu benn relation ak Thiénaba am na war naa toll ci dix ans man ak Njuga Mbeng veyu gàmmo waajal gàmmo ñu dem fa reportage euh, ñoom ñoo ñu dalal yóbbuñu ca armeel ba mais ñëwatuñu gàmmo et tout donte ñoom ñu ngi jàppe seen bopp waa Thiénaba ba léegi yooyu nag dafa laaj ay initiative maanaam samp fa barabu xam-xam di fa développer activité yoo xam dinañu tax nit ñi gën a xemmeem la ñu bokkoon ba nuñu jëgaani leneen feneen boo fa amee daara ña fa jokk ci cana ba indi fa seeni doom daara ji def ay résultat mooy jéego bi jëkk pour nit ñi dellu ci dellu ci la ñu bokkoon bu ko defee ya ca des nag moom jafewur a organiser fexe ñu gàmmo si ak yu mel noonu compliqué wul mais pour man daal boo bëggee samp mbir fi barab point de départ bi mooy xam-xam euh, feeñ na ci li ñu développé la mag ñi fu ñu dugg la ñuy njëkk a samp mooy daara Maam Mor bi mu dekkalee Kajoor daara bi ko buur Siin mayee mu sanc Gosaas daara daara mooy base bi nga xam ni mooy euh, tax mbir mi nga bëgg a développé wala mbir mi nga bëgg a dekkal am ay reen xam-xam mooy baasu lépp ci diine defe loolu yéen a ma ko gën a xam euh, muy tooro muy jolof loolu mooy euh, tooro moom sax ba tey euh, am na fa ay tepp-tepp ndax wuramaadi yu dëkk bu rëy la am na doole donc foofa moom développé waat fa madiankisme du lu du lu jafe ma defe naa baatu madiankisme moom historien yi ñoo ko ñoo ko tëgg Euh, maadiyu dafa am gisiin wu mu indi ci tijaaniya gisiin woowu ñoom la ñu tuddee maadiyankisme tëgg ko ci wàllu français euh, bu leen neexoon yéen it ci ci langue bi ngeen maîtriser euh, ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen tëgg ko ci ku nekk ak langue bi nga maîtriser moom Baay Cheikh laa daan dégg muy kiina di di di tëgg ay baat yu mel noonu taala wi yuun maanaam ñu sosoo ci maam taala ibrahimiyati ñu sosoo ci maam Ibra Penda loolu moom maîtrise langue mooy tax nit ñi nit ki di ko def mais historiens yi ñu të tëgg baat bi rek pour désigner euh, philosophie euh, bi Mamadou ami indi ak ñi ci jokkoo euh, am na question bu dellu si aussi ci Tashum ndax dafa dellu ci suufi waaw Tashum Euh, maanaam du branche sufi tasum xeetu naar la ñoom ñoo tudd tasum léegi nag am seen philosophie boo xam ni dañ cee joggi pour euh, raxas diine ji nga xam ni dañoo jàppoon ni dafa gàkk ci seenu gox maanaam ay sufi lañu naka jekk waaye bi diine néewee doole ci seenu gox ci jepla maanaam bëj gànnaaru euh, Mauritanie ci la diin Euh, inspiré wu ci philosophie almaxiili indi méthodologie boo xam ne ci lay jubbantee diine maanaam euh, du xeetu soufisme même modalité la maanaam doxalin la pour jubbanti diine foo xam ni dafa ràppe woon gis ngeen euh, ñoom niñ ko théoriser donte ay jullit la ñu tudde seen bopp duñu vrai jullit donc faw ñu indi xisba imposer lu baax tere lu bon te loolu moyen bi mooy jihaad gis ngeen ni almaxili théorisé ni ñuy tànne jullit yu bon maanaam ñi murtat wala ñi nga xam ni dañoo judd naka jekk weddi moom jaasi day dal ci seen kaw ñi nga xam ni dañoo tudde seen bopp jullit nag dañuy seet bu fekkente ni dañuy moy ba pare di jéem a daganal moy ga te yàlla tere ko ñoom dañuy daal di dellu ci situation ku murtat jaasi day daal di dal ci seen kaw kon ñoom modalité maanaam nu ñuy euh, defaraate diine ju ràpp moom lañu indi waaye indi du du variante maanaam du aw xeet du riwaaya ci biir euh, sufiankisme euh, ci biir sufiankisme waaw pourquoi le choix du madiankisme par maam Amari Ndag ah loolu de moom sëriñ <laughs> see koy xam maam amari ndaak xaadir la woon ba yàgg mu tase ak maam taahiru maadiyu ñu waxtaan mu xemmeem li maam taahiru maadiyu yor muy wérdu tijaan mu jox ko ko maam amari ndaak bëgg a weesoog moom foofu mu ni ko déedéet borom mbir maa nga wuro maadiyu cheikhu amadou mu fekki ko lañu waxtaane ba mu jox ko ay secret gàll ko mbir mi nag loola moom baatin la boo xam ni historien du ci aventure waaye daal euh, bokk na ca sellaayu diine yi ñu doon dund ñoom ndax boo maadiyankisme différence sam ak euh, yeneen doxaliin donte yépp a baax mooy tànn lu sell sëñ Cheikh amoon da koo tëkk ci image bu bu bu bu bu image buy wax maanaam maadiyankisme génnul diine waaye da cee fiir suñ nee toog ci lal bi araam na maadiyankisme ni bul dugg ci néeg bi soo duggul ci néeg bi doo toog ci lal bi maanaam ay ay euh, doxaliin la yoo xam ni moom da ko xemeem la cay baatin nag ak gaaw a xam sa boroom ak yu mel noonu loolu historien du ko xam ab sëriñ a koy xam waaye daal sellaay bi moom bokk na ko ci li ko attiré ci maadiyankisme ba mu bàyyi euh, tarixa xaadiriya jëflante ak euh, cheikhu Euh, beneen question bi euh, communication sur l'histoire du madiankisme waaw lool de ku nekk da ci bay làccam rek communication moom dafa xew bari na ay façon ku nekk ci say capacité say compétence da nga ciy communiquer Oustaz Amadou Makhtar am na téere bu mu bind génne ko Daouda Diop bërki dem génne téere moom Mamadou sekk ci la def mémoire am ainsi de suite am na ñoo xam ni mën nañoo defar ay vidéo ku mel ni Malick maa ngi koy gis muy partage vidéo ku nekk daal compétence bi nga am lala yàlla jagleel yow yaay communiquer pour taarixu kër gi gën a tas nit ñi gën a xam kër gi la ca des nag moom euh, ay ay waxtaan lay laaj ay kilifa euh, définir stratégie bu leer dénk ko ay nit génne ay moyens waaye en loolu ku nekk ci côté bi nga am compétence mën ngaa communiquer pour gën a feeñal kër gi euh, lan mooy rôlu génération actuelle day day dellu ci lii rek génération actuelle sëñ Ibrahima daf daan wax naan euh, koo xam ni jën wi dañoo dem ca lëgg-lëgg ba maanaam fa géej ga gën a euh, amee turbulence gën a yëngoo jàppal la fa jën wa indil la ko ci tefes gi lakkal la ko ba jëfandikoo dong des ci mënoo jëfandikoo jën wi bu doon yow jën wa du génn ca lëgg-lëgg ba ñun loolu la ñu mag ñi defal li ci des kay muy jëfandiku maanaam préserver li ñu faggul ba ñu nit ëllëg ñu transmettre ko suñuy doom loolu responsabilité individuelle la d'abord doona doon responsabilité collective ku ci nekk boo xoolee sa bopp di nga gis li la mag ñi faggul ba doo wax wax ju ñaaw doo sol lu di doo def lu bon jombale nga sa bopp loolu mag ñee ñu ko fàggal tarbiye ñu ci ku nekk nag yow sa objectif en tant que nit li mu war a doon mooy ustaad dina ci ñëwaat léegi moom foofu la waxtaane jëm tarbiye nit ñi bali la mag ñi bàyyeel su ëllëgee nga transmettre ko loolu mooy responsabilité individuelle bu ko ñépp defee génération bi def na ko waaye mënuñoo dajale ab génération naan leen lii ngeen déedéet génération bi ku ci nekk mooy xam liñ ko defal moom it mu jël responsabilité préserver ko ba jox ko ay doomam bu ko ñépp defee rek génération bi def nañ ko euh, am na question boo xam ne mesure defe naa alpha la mesure de prévention du de préservation du patrimoine spirituel waaw nu ñuy def ba sàmm li nga xam ni mooy li ñu mag ñi faggul mooy dafa dellu rek ci li ma doon wax léegi li ci ëpp mooy xam ko bala nga koo xam da nga koy gëstu jàng ko boo ko xamee nag di nga daal di def sa bopp responsable gàll sa bopp responsabilité boo xam ni mooy da nga koy préserver ba ëllëg nga mën ko joxe te dara génnu ci njàngalem mag ñi ci social ci ci politique li mag ñi doon jàngale yépp bokk na ci communication bi ñu doon wax léegi euh, ñiy gëstu ñoom sëñ Modou ñoo ñooñu ci toll dañu ko war a def ci ay téere euh, li maam Talla daan waxtaanee jële ko ci baayam ni sëñ Ibrahima daan waxtaanee sëñ Alpha ainsi de suite loolu yépp dañu ko war a def ci ay téere nga xam ni booy jàngale ci ngay sukkandiku maanaam maam Talla euh, pour jël benn exemple buur du maye day këpputal loolu am njàngale mu rëy la maanaam euh, buur fu mu la joxe dara rek am na lu muy xaar ci ginnaaw du maye day këppatal noo ciy mucce liggéey ba doo soxla ba soxla buur donc loolu am njàngale la ak euh, ak yeneen maanaam euh, pour préserver patrimoine bi nga xam ni mag ñi bàyyil nañ ko dañ koy xam d'abord buñ ko xamee nag door a indi ay stratégie pour Euh, préserver ko euh, euh, Cheikh Gueye Nasruddin na mu doxale woon tey lan mooy pexe ginnaaw jaar si mënatul a génn mbar ah loolu de mooy ba tey jàng jàngale tarbiya ndax Nasruddin dañ ko notoon ñi ko notoon di ay xasan di ñu tudde seen boppu jullit waaye di ay kàccoor mu lancé guerre bu mu tuddee Charboub ba ba loola deñ yamu fa mu dugg Afrique de l'Ouest dugg Kajoor dugg Jolof looloo tax ñu xam ko niñ ko war a xamee ba imité ko te lam ca jublu woon mooy moom gis na ni jihaad yell na ci buur boo xam ni dafa kàccoor mu jël jaasi jàmmaarloo ak ñoom loolu nag mënee satu ko ndax ñi gën a kàccoor tey ñoo ëpp doole waaye euh, li ëpp lépp doole mooy xam-xam nit mënoo conditionné conscience am boo jàngee ba xam li nga war a xam teg sa bopp ci li la mag ñi jàngal tarbiya sa bopp buur bu kàccoor du la mënal dara waaw ndax dina fekk nga fàggu li ngay dunde ba doo ko soxla jàng nga ba deñ ak réer li ci des yaay organise sa dunduk bopp jaasi ma mënatul a génn mbar pour dal ci jullit yu tuddee seen bopp jullit te ay di ay kàccoor jamono tollootul foofu waaye ku nekk daal mën ngaa préserver sa diine teg ko ci stratégie euh, bi ma wax léegi euh, Cheikh Guène posé na beneen question euh, xam ne am na ci bu laal ci bilan bilan depuis sëñ Ibrahima euh, man li ma gis mooy mag ñi ku nekk am nga bilan la nga tollool def nga ko loolu du gisin woo xam ni historien mën na cee d'accord maam Amari Ndaak dafa suqali maadiyankisme sos bu sosul woon kenn du fi fekk lu muy développé maam taala dafa développé ñi ko wuutu di consolider maanaam di dëgëral ay consolidateur lañu ku ci nekk rek am na loo consolider sëñ ibraayima dafa fës ndax yàgg na fi jamono yi mu tolloon maanaam dafa bokk ci histoire réew mi am bilan bu rëy nag revendiquer Thiénaba lu bari waaye ñi ko wuutu tamit am nañu bilan sëñ Alpha bari na lu mu fi implanté bari na ñaan yu ñuy joxe tey ci ngénte yi penc meeg yooyu moom moo ko ci dugal loolu bilan la donc ku nekk am na côté boo xam ni ca nga liggéeyee Baye Cheikh ku am bilan la donc Baye euh, Seynu Xujje jumaa ji ku ko tudd tudd ko donc mag ñi ñëpp am bilan ku ci nekk jamono ja nga dajeel la mu laaj def nga ko sëñ Ibrahima Alaaji Abdou euh, Seydou nuur dañoo fës parce que ñoom dañoo bokk ci ñi doon bind histoire réew mi bi réew mi génn ci loxol tubaab bi di tàbbi ci loxol nit ñu ñuul ñi ñoom ñoo fi nekk lu ñu war a taxawe taxawe ko ba dara du rëcc ci diine ba ci choix couleur drapo lépp ñu taxawe ko moo tax seen bilan dafa dafa rëy dafa impressionné nit ñi ndax jamono ji ñu taxaweel mais ñi ci des nag ku ci nekk rek euh, la nga tollool def nga ko am nga bilan te moom noonu lay gëstoo bilan mais mënoo def bilan ñëw yem ci kenn ñi ñi ci des nga minimiser seen bilan historien du raisonner euh, noonu defe naa daal loolu moo doon euh, question yi gën a fës maa ngi jéglu ci yi nga xam ne fàtte naa leen euh, di jaajëfal ñëpp ci question yi di jaajëfal ñëpp ci teewaay bi di jaajëfal organisateurs yi fas yéene nag pause tuuti te déglu oustaz incha allah